Euh, ajaratu maa ngi koy wax sànq euh, ñoom ñi nga xamante ne ni ñoo sekk euh, daanaka rek li ñuy xëy di ndekkee tous les jours muy mburu mi ñoom nag fi ñu toll nii d'accord ñoo ak état ci ndogal bi nga xam ne ne jël na ko tey jii ñu fa yéene woon jëmmal daanaka rek ñenn ñu bëri ci boulanger yi fi ñu toll nii dañu ne mburu mi 150 la war a jar looloo waral kii di Amadou Gaye jiite kuréel googu di boulanger yi moom nag am na ay kàddu yu mu ci yëkkati ñu dem déglu ko tëddeel si wula bu ngeen nar a wàññi wàññi leen juróomi dërëm mais nag bu ngeen ko nar a wàññi juróomi dërëm la conséquence mooy faaw ngeen wàññi farine bi 6500 par rapport ak yeneen yi nga xam ni moo yokk si diggante bi mooy courant bi levure bi amee améliorant bi parce que lépp noonu la demee moo tax ñu xayma ni bu ngeen bëggee loolu rek il faut ngeen wàññi 6500 ñoom tamit ñu ne ñu donc volonté volonté bi ñu am mooy dañuy wàññi cinq francs léegi ñu toog ñu recevoir meunier le matin ñoom xaw ma lu ñu fa wax ñun bi ñu ñëwee ñu ne ñu ok léegi danañu baissé 4000 francs si njël li ñu ne ah ñun de kon ñun ak yéen du ñu mën a d' accord si 4000 francs yi ñu sañoon ngeen def ko 6500. sagam yéen vous avez décidé ñu expliqué ni ñu ne écoutez li def nii lu am solo la parce que dañoo jël 160 millions par jour mooy 4000 francs yi lay considéré parce que boo jëlee en moyenne 2000 à 2100 tonnes de farine bi jaay par jour boo ko xaymaa gën saa néew dana nekk ay 160 millions par jour plus de 57 milliards ñu ne ah kon vraiment vous avez fait beaucoup d' efforts. ñun tamit aussi dañ leen joxaat beneen amendement mooy su ngeen kat ñi ngeen yam gis nañu li ngeen def bëri na lool kon amendement bi leen jox mooy premièrement mooy ñun le pain da ngeen ni da nga homologué que ñun buy client bi di jënd mburu du fay TVA kon léegi toutes les autres TVA yu ñuy jël rek day nekk charge suñu te yéen ngeen ni aussi le pain est un produit social mooy nekk deuxième poste de depense des ménage dans les villes kon dans ce cas bëggee wax li ngeen di wax moom ngeen woote TVA bi nga xam ne moo nekk si diesel oil bi ñooñu ngeen teggi leen cette TVA beneen bi mooy levure bi ak amiant bi nga xam ne moo taxoon ñuy xeex ba bëggoon génn ak courant bi bi nga xam ne moo taxoon ñu bëggoon génn grève bëgg grève ba bëgg yokk mburum juróom dërëm kon su bu ngeen joxee 4000 yi lu koy compenser mën na ko jëlee fii si loolu lañ ni ok lii concerne le ministère des finances bi ñu câblé ministère de finances ñoo tam ñu ne ils sont ouverts pour cette discussion là loolu tax ñun boulanger ñu ni kon amuñu consensus si farine bi mm. mais am nañ bëgg accompagner la volonté de baisser vingt cinq francs il faut que les sénégalais comprennent on est dans un de droit bu tey may waxee yow nii arrêté bi génn kon arrêté sagam génn kenn mënu ma jaayloo mburu mi cent cinquante francs kon yow wàññi wala non mënul nekk actuellement nii ku ko def c'est que mais ñun dans notre dañ ni boulanger boo xam ne jàpp nga ni yow mën nga ko def nga def ko mais dama ne actuellement nii tant que jotoo bi bu lay voilà ayca mi ngi noonu ajaratu euh, moom Amadou Gueye nag kàddu yi la yëkkati. Euh, mm-hmm. daanaka rek en résumé ñoom nee na jotaguñu li nga xamante ne ni moo di arrêté bi wane ne. Mm-hmm. Euh, d'après information yi ñu ci joxe yëpp ak coow yi ci jox yëpp ak conseil yi ñu ci def ñoom daal nee nañ fas yéene ñu jaay di perte. Mm-hmm. te waxtaan bi daal ñoom pour ñoom ba léegi nii des na lu bëree bëri Omar Boun moom wax xajatu fi. jëfe bi xaj moom moo toll ci ay wax mais gars yi ci jëf lañ toll parce que bu ñu doon jaay saaku farine 1000 francs sax moom mi boo ne ko wàññil du wàññi léegi nag foofu la état amee solo maanaam ñoom mbir mi état bàyyiwu leen ko ñi def lu leen neex état bi dafa ne bàyyi na cinquante 53 milliards. ci loo xam ne te dafa doon dugg ci keesu état. maanaam ànd balaay neex ku ne bàyyi dara. état bàyyi na dara ñoom danoo war a bàyyi dara. parce que bu doon ni réew mi danoo booyal ku ne rek bàyyi ku ne def ni nga bëggeek ni mu la neexee mais ku mu neex nga def li la neex parce que jaaykat boo gis bénéfice lay wut mais lépp loo gis ci àddina dañ ko organiser nguur gi tëbul rek mu ne noo damay wàññi mburu avant ñu koy def xam nañ yan anam lañ war a jaar ba def ko bi ñu dajalee conseil national de la consommation lan lañ wax ñetti dërëm wàcc nañ ba ci juróomi dërëm tey jii ñi ko jëfee ci ndakaaru ñoo ëpp tey Kër Masaar ga man fàtte woon naa ne sax wàññi am na waaye bi ma xëyee kilo mburu cinquante la jar man bi dugg sama kër moom loolu la jar te bi ma dégloo tamit rajo yi bi ma xëyee ñu bari gisuma ku ne dem na ñu jaay ko 100 francs bu dee am na man yëguma ko kon wàññi boobu am na Amadou Gaye nag bu dee wax day mel day wax ci turu boulanger yëpp alors que association yi ëmb boulanger bari na moom nanguwul am na ñu nangu parce que nee na réew day doox ci ay loi te force reste à bu ñu koy wax état moo tax. Mhm. kon tey jii décision bi état teg ñoom dañu ci war a ànd. benn danaan poids wu mburu bi maanaam diisaayu mburu bi mais mburu diisatul. ñoom ñii de maanaam loolu ci jubbanti gi la war a njëkk bokk bokk waruñu wax rek njëg li mais war nañ dem di xool poids bi ñoom tey bu ñu respecté woon poids bi mburu bu deree deux cent nit ñi nangu ko mais mburu amatul qualité. bu tax ñuy wax kon ñoom ñoom mënuñu. di jalgati yoon ba pare di laaj état bi mu tegu ci yoon li ñu war a def mooy wàññi mooy fexe ba mburu mi am qualité mais aussi tamit ñëw yemale ko ci njëg la mais laaj leen ñoom ndax mën nañ waat ni miisu mburu bii ñu yëkkati mat na kilo matu ko boo leen ko waat la woon duñ ko waat kon tey cent cinquante yi ñu koy jaayee lu jaadu la parce que denrée de première consommation mburu mooy loo xam ne lu nit ñàkk ñàkk ñàkk bu xëyee moom lay njëkk a soxla ci dundam. benn bi da ngay dégg ñu ni la région yi région yi mën a gu fa wàññeeku. wax na ko nee na parce que xamalu indi lool. Mm. mooy conseil national de la consommation bi dajee ci dakaar Dakar seeg dajewuñ ci région yi ba fixé ay prix parce que région yi aussi dañuy sóoraale prix transport bi kon ñoo réalité bi ñuy dund dakaar mënul bokk ak bi ñuy dund ci région yi mais foofu bis bu gouverneur yi dajee dajee ak conseil national de la consommation ban fixé prix ñoom dañuy ànd ci loolu Sénégal dafa bëri ay tappale waaw moom nee na loolu lay wax nee na dañoo waroon bàyyi ba pare ba ñi nekk ci yeneen gox yëpp waxtaan ba noppi ñoo ñuy doog a fixé prix yi parce que ne fi doon nii dañ ko def affaire yu yàkkamti non musul demee noonu nag prix foo ko mës a dégg ñi wàññi nañ ko mm. Dakar lu njëkk a mm. léegi après day yéeg état noonu lay doxee parce que daf ci am loo xam ne tey jii bu dee bu dee rek toog di réunion mun nañ toog ba déwén du li ñuy dooy kilifa mooy bu décision jotee mm. nga jël ko mëñee yi ñuy wax mooy ñiy defar farine bi di ko jaay mais ñoon tey kenn gul leen doon ay tappalekat ñeneen dañuy dem si bu ñuy wax concurrence mu ngi mel ni am ci ciment bi ciment bi ne wàññi nañ ko ñu yor ciment bi yëpp danoo d'accord ne wàññi nañ mm. lu tax ñu yor farine bi tenir en otage état bi parce que état yi fi doon jëkk nekk dañ leen daan napp nekk ay lobby bari doole ñoo di leen imposer ay prix parce que bu ñuy wax concurrence concurrence lan moo ko indi mooy nit mënu mënuñu am ay usines meunières ba pare ci Sénégal ñu ne dañuy jaay farine ñoom ñu créer association di jaay même prix état ba mu leen doon wax ña ibbil fii ibbil fii loolu boo diggee ñu koy wax pour que concurrence am. saa mën a jaay lii son mën a jaay li man ma mën a jaay li mais bu dee ni ñoom ñëpp état da leen may possibilité ñi jaay farine ba pare ñu waxtaan seen biir ne li mooy prix bi concurrence amatul loolu lépp ñu jël yan ko ci ko escan bi léegi bu ñu waxee nanu ñu noon état subventionné nanu subventionné li ñu war a def mooy njëgu mburu bi état bi xëyul jaay kenn doole. état dafa bàyyi dara ñoom nan bàyyi dara. d'accord nga réew bu ñu koy tabax. Hmm. ku mu ne ci ñun day def sacrifice. Hmm. am lu mu joxe ci boppam. Hmm. pour que baadoolo yi mën ko jëriñoo. d'accord lii tey jii ñi jël décision mun na am sax du lekk mburu. mu naam bu pour wax mais booy jël décision da nga koy jël pour gën a oyofal ñu néew doole. d'accord kon tey jii meunier yi boulanger yi ku mënti doon neen def sacrifice. ànd ak lii. ëllëg bis bu waree yokk yokkaat day yokk parce que am na prix aussi taxawul parce que blé courant bi la même chose yooyu yëpp ay waxtaan la yi ñëw ci kanam. Mhm. mais tey jii ici à Dakar man déggaguma fi. ci suba ak léegi ku ne jaay na kilo mburu deux cent. cent cinquante lay jaay cent soixante-quinze la kan moom Amadou. Amadou Boye jaayatul jaayatul mburu waaye ah yow. sooy wax de ba wax ah, euh, sooy bu nee na fi mu toll nii bu dee maññee yi suba dañoo bank seen loxo bañ a jaay moom jamono ji zéro stock la dese. mooy peut-être mën nañu xëy sax euh, ab jour du ñu gis mburu moo xamante ne daañu ko jëfandikoo. waa xam nga mosuñoo gis réew mu mburu manqué euh, mu am problème. waaye nit ñi moom saa suñu xëyee dinañu lekk dinañu naan donte mburu amut man dund naa at yàgg gisuma mburu te damay dund damay lekk di añ di nekk di reer te gisuma mburu mburu su ma ko masaan a gis day fekk nga ñëw ca dëkk ba wala saa njóogu ñëw fa la ñu am geneen gan mm. mu ñëw indi mburu bu ñu xëyee ab dagg bañ la ci jox day wow koŋ ndax ngelaw li upp na ko Touba ba dakaar fu nekk mu jaar fa bu yegg si wow na koŋ mm. nga am ceeb dagg lekk te amoo ci woon problème te boobu la woon gën a wér kii wax na ko léegi mburu diisatul am na ku koy bind ci commentaire yi fu mu toll site boo dugg bind am gis ko fa mu ni mburu diisatul léegi xaw ma lu tax am réew nag euh, ku ne da ngaa war a wane patriotisme ci sa bopp maanaam ñii li ma gëmoon mooy dañoo waroon a wane seenu bëgg réew mi ci lii xew mooy am na ñu ñëw Sandiogou mu ngi koy wax ci suba ñëpp dañoo constaté ni ñii yor réew mi moom ñu bëgg Sénégal lañu en tout cas ay sénégalais lañ pure dire bi ñu ñëwee au lieu que ñu jébbal seen bopp réew mi mais dañoo jël réew mi ñoom ñoo ñoom ñoo au lieu ñu jël réew mi jébbal seen bopp ñoom ñoo jël seen bopp jébbal ko réew mi maanaam di def sacrifice pour sénégalais gis seen bopp ci réew mi ci lu anam yu bëree bëri xam nga bu ñu demee ba gis ministre bi ñu dénk agri euh, agriculture àndoon ak suñu waajooju invité woon nañ ko fii waaye Assane ji waa ak façon bi dangay xam ni réew mi mi ngi mi ngi dem nga gis ay nit yoo xam ne itam daawur waaw daawur mhm. xam nga yooyu après yow sa bopp lu tax nga mën leen ko muñal man de wax dëgg yàlla saa mi ngi koy wax keroog ci jomet man mën naa muñal gars yi ñu toog fi ni un an de ko fi toogoon te wàññiwoon dund ki sax ñu bëgër gi man mën naa leen ko muñal ndax doxin bi ma gis ñu koy doxee pour bëgg am fu ñu yóbbu réew mi loolu nag ki bëgg réew mi moo ko mën a xam su fekkee ne da fal ay nit yoo xam dañoo ñëw bëgg a jekk doo bëgg a jagal réew mi moom bu leen may dara parce dañoo xam ne ñii réew mi la dundee mm-hmm. mais nit yoo xam ne bi ñu ñëwee ñi ngi teg ay jéego nee nañu bu dee ci wàllum njàng mi det ya fa waaj ba euh, bàyyi woon nañ ko mm-hmm. ñu dem ci wàllu paj mi noonu baykat yi noonu fu nekk ñu dugg fa milliards yi fi waaj a ñu kër kër ba dugal ko fa dagal dugal fa dara di fay ñooñu wax dëgg yàlla ma jigéen man pour man jàppale leen bokk na soo ñëwee mm-hmm. secteur bi awma ci dara damay jaay di perte dafa ñaaw ci ku bëgg réew mi maanaam nii ñuy doxee ni ay politiciens ñoo daan doxee noonu maanaam lan laa ci am lii su ma defee nii lu ma ci am lii du ci am dara Sénégal waroon na leen a jaral ak développement Sénégal ministre bi woon na leen ñu toog waxtaan dañoo waroon a xool lan la ñu ñoom ñoom nañ nangoo perte man ab commerçant dafa ma wax ni ma. mais moom nee na du jaay di perte de. waaw non loolu koo gis muy jaay day perte. koo gis muy jaay. bis dina ñëw wala dina am benn semaine bu mu perte lu bëri mais nag ci lim perte mën naa xëy daje coup bu dëgër ci benn bés c'est-à-dire liggéey moom boo gis noonu lay demee lekk nag ñoom réew mi toll na fii am na régime bu bees bu ñëw lu tax mënuñoo perte dara pour xam xalaat fi ñu jëm bu demee nag ba xam ni muñal nañu réew mi muñal nañ nguur gi fi nekk ñu dem ba ci biir xam ne ñu ngi loro su boobaa ñu taxaw mais fii ñu taxaw ni man pour man bët bu ñaaw la leen sénégalais di xoolee muy kaay ñu ànd defar réew mi kaay ñu ànd dimbali sénégalais nga naan lu ma ci amee sama intérêt laay xool ak damay jaay di perte ak damay jaay di umu en tout cas ñu ñàkk yërmande ne te maa ngi ñaan état bu Sénégal ne nit ñi volonté wu lu def li Sa Ndiogou waxoon muy nañu dimbali état bi ci li mu bëgg a def muy su fekkee ne ñun dañoo bëgg a araamal mburu sax ñun nan leen ci dimbali pour ñoom ñu teg li ñu bëgg a teg it wan leen ni leen euh, majorité bi saa doon wax naan moom la ñuy laaj pour bëgg a def lañu def ci assemblée wane nañ ko fii itamit bu fekkee bëgg na ñu defar réew nañ leen fekk si ci li ñu bëgg dellu ca poñse mbiskit dugub <laughs> bilaay beñe dugub ñun tabaski ba léegi lekk lekk ñu fi mburu de xanaa ay beñe la ñuy lekk kenn xamul parce que jaaykat nekkuñu fi est-ce dañoo xëy si wala ñu ñëw ci télé ba kenn ni ñii lekkuñu mburu déedéet nañu am yërmande waaye <laughs> jërëjëf noonu ajaratu noo jàngate kàddu bi nga xam ne Amadou Gaye yëkkati na ko waaw dama leen di dégg après waa amis yi maa ngi dégg ñu naan mois de mais dañu jot euh, toogoon nag euh, Ousmane Sonko premier ministre ñu war ci ñu waxtaan mais jotuñu woon pare ñu war a waxtaan waxtaanaat euh, ci ay concertation avant ñuy jël ay mesures ñu ne dañu xëy rek mbir mi daanu ci seen kaw xam nga des fois di nga comprendre parce que fii kenn du jaay pour perte dëgg la mais des fois don de soi dafay baax des fois nga def ko wala don li nga yor. parce que euh, dañoo toll foo xamante ni sénégalais yi dañoo sonn d'accord man waxuma nit ki mu jaay pour perte parce que kenn du investir sa xaalis naan pertal nangam ak nangam loolu kenn du ko nangu man bu may jaay du ma nangu perte xanaa yàlla perte loo ma mu nëpp mbaawu yàqu loolu d'accord naa ci mais gis nga dañu toll foo xamante ni nañu dimbali sénégalais yi tey jii dafa am ku ma doon waxtaanal koo xamante ni moom ñoom dañoo yor boulangerie mu ni ma même bu fekkee dañu wàññi bet yi ma ne ko naa mu ni ma farine bi wàññeekuwul courant bi wàññeekuwul dara wàññeekuwul yow il faut des mesures d'accompagnement yoo xamante ni daf ñuy dimbali ñun ñi nga xamante ni ñun ñoo yor boulangerie yi d'accord naa di nga am nag ci li ngay liggéey ci ngay am yërmande ci ngay dimbali nit ñi et tout mais aussi bu fekkee ne dañu xëy rek wàññi après ñu woo leen ci conseil bi ñu ñëw waxtaan ba ñu accepté ko man gëw ma ni jaroon na ñuy defaat sorti di wax ni euh, euh, d'ici deux jours dina manqué wala pénurie dina am wala yooyook yooyu loolu moom kenn ko suné wu ko mais nag lu ci mënti am nañu toogaat ñu waxtaan bu fekkee ni wàññi bi mënu nekk parce que bu ñu liggéeyul fi mu ne nii ñoom ñooy perte wala seen i employé toog wala dara loolu aussi du du du du du euh, loo xamante ni dañ ko ciy gañe jërëjëf Alaaji allah xam nga eh, gars yi mooy meññee yeeg ñi yor boulangerie yeeg ñuy wax ni yëpp ci caaxaan lañ ne waaw te caaxaan gi ñu ne eh, daan ci xam dara buñ ñu jëfun ndànk léegi parce que gis nga yi problème yi mooy même problème yi de problème yi mooy Ablaye Wade amoon moom la président Macky Sall amoon ay lobby rek yu taxaw di régler seeni mbir ci ndoddu askan wi yaa ngi dégg Mamar Ndaw mi daan na fi kii ne wax ne mburu mi dafa war a wàññeeku dafa war a kii daan na ko fi wax boo xam bu boulangerie yëpp mere woon ko fi parce que gars yi euh, waxuñu la lépp lañ lay wax sax ne la xaw ma nangami garam kii pour kii bi demeewu donc ñoom ñi ngi ci génn dañ cee bëgg gën a génn gën a gën a génn léegi nag parce que li Omar wax mi ngi nii parce que defe naa ni euh, meññee kii mat na plus de sept yoo xamante ne bi ñi ngi fi ñoom ñëpp dañoo mën a bokk benn bi loolu mooy nañ mànkoo duma askan loolu la dafa am yoo xam ne war sa ne ñuy wax tamit ñoom yëpp yooyu yëpp bëtti dañoo war a parce que concurrence am na mm-hmm. ah Euh, affaire yu mel noonu mooy yi nga xamante ni mooy jafe-jafe yi nga xamante ni bii tey euh, mooy yi am léegi nag askan moom li mu bëgg moom dañoo war a xam ñun li ñu bëgg ñun ñoo bëgg soppite hmm. askan wi maanaam li ëpp ci askan wi loolu lañ bëgg. ñun nag état bi mënut a def loo xam ne euh, réussir ko te jàppalewuñ ko ci. bu dee dañoo defe ne vote woon kese dem dugal suñuy carte jeex na déedéet mbir maa ngi soog a tàmbale bëggoon naa mburu ne man mburu mii suma xëyee ci laay ndékk ci laay def lii ci laay def laa ci laay def lële état teg na ab jéego yaa ngi dégg ñoom nee nañ dañuy grève pour jéem a sanctionner askan wi ba duñ gis mburu moomu bu ñu faale mburu hmm. nañ wuti ji leneen loo xamante ni bi moom la ñuy lekk te état bi nekk fa mu ne waaye di nga si gis ñoo xam ne nii. c'est que dama la bëgg a xamal ne la ma jigéen. Mm. Euh, boycotté seen mbir yi pendant six mois pour régler problème à problème boo xamante ni bi problème la pendant des années ci ginnaaw nga mu topp la nga régler ko gi nga fi mu toll bu ñu toogoon waxuma la six mois balaa ñuy def trois mois ñoom ñëpp ñu correct parce que il suffit ñu xam ni askan wi ñu ngi ci ginnaaw seeni njiit mm. wóor na yàlla ñoom ñëpp ñu jubbantiku mm. donc mais il faut nag askan wi ñoom ci seen jëmmi bopp ñoom ñoo war a suivre parce que Eiffage li mu perte noonu 53 milliards yooyu yëpp daal di ko nangoo bàyyi. waaw pour askan wi yow nga ne man du ma euh, bàyyi dara te perto dara pertuñu. ay taxes la lañ teggi. yaa ngi dégg pertuñu te secteur yëpp nag kenn kaasul daanaka yow rek yaay kaas. waaw pertuñu. léegi na askan ñoom na askan wi ñoom ci seen jëmmi bopp suivre. man de bu ñu arrêté seen kii ma bàyyi mburu seen yi caaxaan yi ñu ne. Hmm. waaw na nañ caaxaan. ma moom yomb naa bàyyi. dama koy baax affaire bi gën a am problème sax si si début waxtaan bi ñetti dërëm la ñu waxoon ne dañuy wàññi. ñu jékki-jékki ne 150. ma ne peut-être waxuma la xam nga ne ñaa xam nga moom boo waxee ne kii na la wóor la ay mbujoo buroo beñee be beñee farine ah. yooyu ak yooyu yëpp koy ba nañ adopté dugub. beñe dugub beñe dugub seen yoon newu ci hmm. yaa ngi dégg lii sax beneen saa yi am na ay problème yoo xam ne même domadaa sax moo xamal la leen domadaa am na ay problème yoo xamante ni kii domadaa du am fari ankay am ah, yi noonu domadaa bàyyi domadaa ndax domadaa sax togg jigéen ju tayel la li ngay def yow tamit togg jigéen ju tayel la xam nga jigéen ju tayel rek ñoo koy foo gis mu kuy xam nga xam nga tey problème yi ngay gis hmm. maanaam mën nañu delloo sil sax ñu xool meññeefu suñu réew yi. nan lañ mën a def pour maanaam profiter ci yëf yi. waaw comprendre nga daal di basculer ci leneen. te loolu. c'est possible nañ ko jéem parce que kaay max la maa ngi nii tey man kenn laaj ci ñi nga xamante ni bii tey béti mm. ci réew mi laa dëkk comprendre nga mm. Mm. nañu fexe bañ a jàppee yëf yi caaxaan te xam ne dañuy defar mm-hmm. comprendre nga am na loo xam ne béti boo ko defaree fi lay jaaree yëf yi jeex jeex ba faaw par il faut nangu leen li sacrifié wu. Mhm. daal di ne kat lii kat il faut ñu doxalee nii pour lii mën a ne. parce que sinon lobby yi dañ ñuy topp. wax de di wañ sa loxo foo toll. ñaata at ngay dégg mburu nii mburu naa mëñëy nii kii nii boulangerie nii kër at mu jot ñu bëgg ñoo rey. dërëm bi dañ ko ci yokk ñaar dërëm yi nii dem débat yëpp mburu <laughs> nañ bàyyi débat bu loo xam xëy ndekki ci may ñu xamal seega yi ngay def di baaxul. yow mënoo koy ndekki te ndekkewu mburu ah, de man man damaa bañ a nekkee man si bëri man parfois bañ a dugub laay nekkee. sukaa ngi nii kal ci fonde bi te amul benn problème. sukaa mi fonde bi la ko ah fonde lekk fonde bi lu mu ko waaye. sept jours saa yu a euh, dugub laay nit ñi basculer. Mhm. jóge ci yëfu caaxaan yi quoi lu nit mënta bàyyi amut. vraiment nga tey jii ne day ñëw ci dugub bi ngay xam tappalekat di nga nit bu namee tappale ñun ñun suñu réew. des na ma ñenn yi bal mais ñun sérieux wuñ yi eh, da koy réew mi xam lu koy réglé mooy patriotisme non kenn ku nekk wane sax bëgg réew mi waaye lu ma ci amee jëndkat bi ñëpp jàpp ne war a def sacrifice. non non c'est que il faut que xam nga. mais utub xaalis rek nii la def. gars opposition yi opposition mooy média opposition bi jël leen tam tamal leen naan leen wéy wax dëgg fa yàlla mu leen ñu ñu defe ne ñu ngi ci dara te fekk ne ay kii lañu rek. ay lobby la ñuy def rek pour jéem a <laughs> xoñañal askan wi. nañu dimbali waaye. ajaratu euh, indi woon tey ci actualité du jour di leen jox dig daje suba ak jàmm ak beneen ak. suba incha allah ma jigéen Diop Dieng Sall